asalaamaaleykum mbokk yi ku ci nekk ñoo ngi lay sa tur ak sant ah, di wax ne nag ñun li ñu tax a jóg ñun cordonnier yi lenn rek la dañ fay yor benn association bu ñuy wax association cordonnier marché bu bees mais nag dañuy wax ci turu Guédiawaye gépp tu wax si turu ude yëpp parce que ude yëpp teew nañ suñuy wax suñu ñaxtu lenn rek la muy dañ koy déparé ci li nga xamante ne ni mooy matériel bu seer bi ñun ñëpp ku ci nekk xam na ne matériel bi dafa seer gars yi ni ñuy yokkee matériel bi jaaduwul ndax da ngay gis loo xamante ni lu demee ni tey ni ma la gën moom la misaale muy kol gii ñun ñëpp gis nañ ko mi ngi doon jar mille neuf cent gars yi yokk deux mille gars yi yokk deux mille trois cent ñu naan doy na ñu yokk deux mille cinq cent ñu dem ba léegi ñu ko jaayee trois mille sept cent xam lu demee ne binocole yi nga xamante dañ ko ñu ko doon jaayee à six mille léegi mi ngi jar douze mille francs xam ngeen ne loolu jaaduwul ci yokk boo xam ne teguwul ci yoon léegi nag ñun ay cordonniers lañ ñun ay doomi réew mi lañ dañuy wax ne ñun dañuy dañoo nekk ci liggéey te président Macky Sall day wax ne ah dafa bëgg ñu forme xale yi ci li ñuy liggéey parce que xale yi toujours toujours ñoo ngi nekk ci ci dëkk bi ñoo ngi jàng mais ku sa jàng matul ñu indi ne former leen ko mais ci lan lañ koy former ci métier muy dee métier boo bi seer na léegi nag ñaan président Macky Sall moom mi ngi xam ne moo fi nekk di ñaan état bi état bi jàppale ñu jàppale cordonniers yi xool ñu bu baax parce que ñun li ñuy liggéey suñu ñu suñu waab si lañ judd lii rek la xam xamuñu leneen léegi nag président Macky Sall jàppale état bi jàppale ñu ci li nga xamante ni mooy métier mii nga xam ne moom la ñu yor sonn trop nag ñun ñëpp koo ci gis dafa sonn li ma leen yéen ñëpp xam ngeen ko métier bi dañ daan waxuma la tabaski dañ daan wax naan tabaski ñoom ñëpp ñu basé wu ci tabaski mais léegi tabaski sax xaru tabaski dañ koy lépp lan moo ko waral lépp lu ñu liggéey versé waat ko jaakatu matériel yi mais loolu c'est pas normal li ñu bëgg ñu bëgg ñu def ko li ñu bëgg ñu dimbali ci mooy état bi nañu dimbali wàññi matériel bi nañu dimbali jàkkatu matériel bi nañu dimbali matériel bi état nañu dimbali wàññi taxi yi ba nga xam ne matériel bi aussi dina mën a wàññi matériel bi ndax koo dem ci moom di ko wax li mu lay wax mooy taxi yee seer dimbali wàññi taxi yi su dee ci état bi bu dee ci état yi bu dee ci ñoom la amee ah, ñun ñu waaye ñu ñu contrôle de ñu jàppale ñu ci ci nga xamante ñooy ñooy ñooy jàkkatu matériel bi xool leen li liggéey lan parce que bu dee ci ñoom la ñu teg leen ne daan parce que ñun it nag du ñu liggéey di ko jox kenn nit rek fu ñu toll di ko def ñun ay boromi kër lañu koo ci gis dafa fatigué ñuy ñaan président de la république di ko ñaan Macky Sall di ñaan état bi mu geesu coordonné yi parce que nag coordonné yi sonn nañ de li may wax nii du Géejawaay rek Géejawaay sonn na Médina sonn nañ boo demee Ngaay dañoo sonn soo demee yëmbal gii dañoo sonn te ñun ay doomi réew mi lañu soo demee Thiès dañoo fatigué fatigué nañu nañu président Macky Sall dimbali nañu état bi jàppale ci lii ñu nekk di ko ñaxtu waaw leneen li ci des nag mooy président Macky Sall xam ne ñun Géejawaay lañu dëkk. ñun amuñu lu dul géejaway liggéey rek la ñuy def leneen li ci des mooy mag président Macky Sall ah gis nañ la ngay ngay ngay génne ay financement di ko dugal mais ñun waa géejaway dara marché bu bees dara finance financement DER yi ngeen dañ koy dégg rek ñun waa marché bu bees financement DER yi ñun dañ koy dégg cent cinquante mille da nga doon dimbalee nit ñi ñun dañ koy dégg ñun dara président Macky Sall ñoo ngi lay ñaan ñun waa marché bu bees soxla nañu ay financement ñun coordonniers yi soxla nañu financement parce que li may wax nii nekkul coordonnier rek damay wax ni artisan marché bees kenn gisul dara du téyeer bi du tëgg bi du kenn koo xamante ni nii li président Macky Sall di joxe am nañ ci mais ñun xanaa ñoo dëkkul si dëgg bi nañu président Macky Sall dimbali ci ci ci financement yi muy def parce que nag soxla nañ ko wax dëgg yàlla soxla nañu financement yi ndax dañoo yor ay kër dañoo sonn fatigué nañu ci moom la ñu am yaakaar ndax mooy président ñoo ngi koy sant bu baax dëgg li ma bëggoon développé ba bari na waaye nag damay yamagun foofu rek ñu jox suñu euh, suñu porte-parole bi Tafa Seck mu àggale li des parce que leneen li si des mu mën na ko àggale nañ ko jox mu àggale ñu si des waaye daal ñooy wax ne président Macky sonn nañu damm nañu tàyyi nañu nañu dimbali te yàlla rek tax. li ñu koy wax mooy dugg na ci point yu bëri mais li ñu gën a métti tamit mooy daal yi ñuy importé di ko indi fii mu ngi bëgg a rey ndax munoo nekk doomu dëkk bi jàng métier ba mën ko keneen ñëw di copier sa daal di ko def kaw su boo xam ne baaxul sax ci santé bi. ñu ngi xeex ay kaasu café lu ne mais ni ñu leen di rey mooy dàll kawsi yi ñuy sol ñooñu gën a yomb yombale ñooñu gën a bon bonle benn xale jàngatul métier kon sa xale kaay ma dugal la nga defari dàll mu ni déedéet président emploi bi ngay wax ak ONG yi nga teg pour ñu xeex immigration clandestin bi mooy que ñi jàng métier mën ko fii bàyyi lañ ñu liggéeyee fii gis na ñu mën nañoo créer entreprise yoo xam ni benn doomu dëkk bi dootul dëkk génn dëkk bi di dem ñun nag doom lañ li ñu lay wax mooy ñooñu xaalis boobu ñu lay fay ñun heure bu ñu xëyee nañ joxe fanweeri dërëm suñu place nga ñu koy dencal xëy na dañ ñoo gën a dajale yëkkati benn million jox la ko mais ñun chaque jour ñu nat chaque jour ñu nat boo ko natee ci at bi kenn xamul nu mu toll considéré ñu ñu toog ci réew mi liggéey ñu ngi bëtt gaal dem ngay fay xaalis boobu ay milliards di ko def ci ay ONG nañu génne Sinois yi ci dëkk bi Sinois yi nañ leen génnee li ñuy liggéey baaxul ñoom ak waa Turc ñoom ak waa ñoom ak waa Turc ñu ngi bëgg a li ñuy liggéey baaxul baaxul ci wér-gi-yaram suñu mag yi am nañ ay rhumatisme ni ñi seen tànk yaa ngi metti rien que kawsu bi nit ñi hémorroïde nañ li ñuy def dara baaxu ci léegi nag li ñu lay ñaan président mooy importé bi ñuy jël damay génnee benn daal wala sam benn morom génne ko chinois yi ñu ngi seen immeuble fii biir dakaar importé tuñ dañuy jël daal boobu xeeli ko mu doon kawsu bu bon nit ñi di ko sol daal yaa ngi nii ngir yàlla war a suul yi dimbali ñu ngir yàlla say doom lañu boo ñu financé tamit wax dëgg yàlla chinois yi ñu bëgg a rey léegi nag ñu ngi lay tàllal loxo di la tàllal loxo première pas baa ngi nii ñun ay kilifa lañ dëkk bi dañ koy defar yor suñu métier duñ fi nekk di sànni xeer duñu fi nekk di toju ay biis ni ngeen ko waxee woon noonu lañ ko defee takk nañ suñu ay morceau passivement ñu ngi woo ñeneen ñi buñ toogee ba ci kanam nag dara xewul dinañ def ci beneen mën bu ñu mënee association bi nag mu ngi fi di góor góorlu di taxale li ñu lay wax nag président mooy dimbalil sa waa dëkk dimbalil sa waa koñ dimbalil sa adduna bi dimbali ñu ngir yàlla war a suul yi ñi li leen lay ñaan mooy nga wàññi lu importé bi beneen bi xaw ma marché bi yaa ko libéré xaw ma libéré woo ko nee nañ marché lu neex waaye jaayee waaye dimbali ñu ngir yàlla mooy ku indi sa protocole jaayee ko la neex lii du doon jar 35000 léegi muy jar 45000 loolu neexatul lii jógee 6000 di jar 12000 ah boo jaayee nooy def ngir yàlla war a suul ñu bëgg nga ñu toog fi tekki comme ni nga koy waxee toog fii réussite mën na nekk sinon rek ñu def suñu mënin mooy ñu def lu ñu neex. déew dëkk boo màcc manque métier nag moom ñëpp di commerce musiba am na xale yi judd nañu retraité de xale yëpp fi métier pari foot bi la ñuy jàngi métier te c'est dangereux ñun mën nañoo créer de ñun mën nañoo créer entreprise ñun mën nañoo créer entreprise dimbali ñu nga génne importé bi nga xool léegi xale yi jàngi métier mën ma jël fukki xale di leen fay jàngal leen métier keneen ak keneen ku nekk fii def ko mais buñ ko deful xale yi dëkk bi bàyyi nañ jàng ñu ngi ci pari foot bu fekkee loolu nag mooy jot xaalis bi yaa ngi nax sa bopp nga baal ma président waaye dimbali ñu ngir yàlla dimbali ñu dimbali ñu ngir yàlla nga génnee Sinoa yi say doomu dëkk sonn nañ trop président man daal mbooloom yaakaar naa li lañu wax ni nañ leen ko waxal te wax nañ ko ngir suñu bopp wax nañ ko ngir suñu njaboot wax nañ ko ngir àdduna bi wax nañ ko ngëllëg ngir ñi bëgg a téye réew mi dimbali ñu nga génnee Sinoa yi ngir yàlla. dañu ne ñun ñi li nga xam ne ñun mënuñu koo liggéey muy li nga xam ne matière bi nga xamante ne ñun munuñu koo liggéey muy kol ka su palin euh, talon maanaam li nga ne moom la ñuy composé pour mu nekk daal ñoom bu leen neexee mën nañoo liggéey indi ko parce que ñun mënuñu koo liggéey mais léegi nag ñoom loolu suñ ko indee jaay ñu ko bu ko defee ñun ñu defar daal li li ko dalee daal saak poset lépp sénégalais yi mën nañ koo defar te ñu ngi ciy góorgóor lu baax tey lu macha allah li ñuy defar lu rafet lu dëgër la loolu lañ bëgg nag ñu teel ñu affaire chinois yi daal chinois yi importé chinois yi nga xamante ñoo ko fi indi ak daal turquien yi ñu teel ñu ko ñun ñu liggéeyal ko suñu bopp mën nañ koo liggéey parce que ni ko tafaadewu tafawaat du waxee rek sama mbokk mi boo gisee benn xale nanguwut a jàng métier fi mu ne nii à cause que lan métier mi yàqu na uude yi nga gis nii yëpp ñu ci bëri gaan bu ñu xëyee problème mu dépasse la ñuy am problème mu dépasse parce que mënatuñoo am dépasse ci métier mi matériel bi seer na ba dañuy liggéey seen daal ba pare mënatuñ koo jaay ñëpp daw nañu wuti daalu chinois yi te li ñuy liggéey ñun mu dàqu ñu ko mën nañ koo liggéey nañ ñu dimbale ngir yàlla ñu tee importé chinois yi ñoom matériel bi nga xamante ñun mënuñu koo liggéey ñu indil ñu ko ñu ciy am bu ko defee ñun ñuy liggéey ah di am sunu sunu sunu wërsëg loolu daal lañ amoon ci li ñuy wax wasalaam. réew mi di wax ak maanaam ki jiite réew mi di wax ak tamit commerçant yi nga xam ne tey ñoom ñoo waral suñu conférence kii de presse bi waaw ndax euh, sénégalais yi sonn nañ trop waaw képp ku yor fii métier Sénégal sonn nga bàyyi nga ko yaa ngi seet leneen te loolu yëpp mais la moo ko waral mooy ñàkk am ndimbalu état bi état bi maanaam protégé wul benn artisan muy cordonnier muy bijoutier muy tailleur muy leneen. ah képp ku fi nekk corps de métier rek état bi protégé wu la xam nga te loolu moom moo jur jafe-jafe yi am gis dëkk bi yëpp parce que réew mi yëpp boo mënu ñoo bokk nekk ay commerçant di jaay ay ambulants réew mi yëpp mais mënu mënul dund ci ambulant nañu dimbali jéem a jéem a sauver métier yi nga xam ni moom la sénégalais yi am waaw sénégalais yi nangu nañoo liggéey mais dañoo jàppalewul commerçant yi aussi tamit dama leen di dama leen di joxoñ commerçant yi dimbalewuñu uure yi benn yoon waaw parce ñoom daal di daal di importé yi ñuy kaas fii yëpp ñoom ñoo ko dugal waaw ñoom ñoo ko fiy dugal nañ nañu dimbali artisan yi nekk senegal nañ leen dimbali ñu liggéey waaw parce que suñu benn kolo wax na ko léegi bu ñu jàppalewul xale yi kii ñu liggéey xale da ngay génn réew mi ah dem ci yeneen réew di liggéey waaw wala ñu def naka sudul noonu te loolu moo fi nekk nañ dimbali artisan yi ñu liggéey waaw Sénégal yaa ni mën a liggéey daal ba dee nañ leen dimbali waa ngi leen matériel bi nangoo jënd dàll yi waaw parce que mais matériel bi cher na trop waaw protocole mënuñu ko génne 2000 francs mu jugee 2000 francs di dem ay 3200 di jugee ci ay 7000 di dem ci ay 11000 waaw di jël di di jëlee toit ci 2000 di ko yóbbu ci ay 3000 mil ah, euh, di liggéey daal mënoo ko jaayee 1000 francs sax loolu dafa ñaaw commerçant yi nañu dimbali wàññi ñu matériel bi ndax nit ñi mën a liggéey. ñu delluwaat si rek ci waxaat ji parce que léegi damaa dégg si ñi ma àndal ñëpp ñu wax ko ah, muy tafa sëñ tafa wax na ko ah, sa bàcc gàkk wax na ko. sama gars yëpp wax nañ dafa am léegi li ci nekk mooy dañ ciy delluwaat parce que ñun suñu wàllu bopp su ngeen xoolee matériel bi ni ma leen ko mën a waxee mooy chinois bi dafa ñëw song suñuy tànk ñuy kër kër rek moom ñu boole ñoo turki mu ñëw tër ñu mais ñu boole ñoo jaaykat matériel ñu bëgg a rendi métier bi fan lañ jëm ñun fan lañ jëm bu ñu rendee métier bi ñun fan lañ jëm bu ñun mënuñoo bëre ak chinois Chine doyatul ñu indil ñu turki doyatul ñu ñuy ñu boole ñoo commerçant yi nga xam ay sénégalais lañ kon ñun ci li ma ko mën a jàngate mooy dañuy ñuy tër di rende xam nga tax wax loolu muy matériel bi fi ñu koy denc àgg ba benn uude liggéeyatul amatul benn uude bu liggéey tabaski xaru tabaski xarit dañ ko leb màggal Touba gi yéen jëm nii ñu si bari di bu ñu leen lebul paas duñu dem mais président sonn nañ mais mais président ñun dañ waaw ñun dañoo sonn sonn moo tax nag ñu woote wax ji ñu woote di wax li ñuy ñaan mooy président nag ñu dimbali dimbali ñu si commerçant yi ñu xool naka la ñuy mën def ba wàññil ba wàññil ñu matériel bi su dee ci bi la ñu wàññi ñu wàññi taxe bi ba tax matériel bi mën a wàññeeku su dee ci ñoom la ñu wutal ñu ñu wutal ñu contrôle de prix ñëw contrôle de xool ko ku ci jaaduwul ñu teg lay daan parce que mën nañ ko mais nañu état bi dimbali te yàlla rek tax. xam nga ñun buñ sañoon président li muy njëkk def mooy wàññi fexe wàññi taxe yi ba jaaykatu matériel yi wàññi seen matériel li ci des dañuy ñaan sénégalais yi parce que nag ñun ay sénégalais lañu ci doomi réew mi lañu bokk li ñuy liggéey nañu sénégalais yi dimbali jënd ko parce que nag ñun li ñuy liggéey sénégalais rek ñoo ko mën a jënd mais tey boo xoolee mille sénégalais cent pour cent téeméer sénégalais yi loo romb juróom-ñett fukk yëpp yeneen dali chinois la ñuy sol wala ñu sol dal turki bàyyi ñun suñu suñu doomu réew loolu sénégalais ñoo ñu si mën a dimbali li ñuy liggéey dëgër na wér na rafet na waaw ñu bëggoon ñu dimbali ñoom di ko di ko di ko jënd ko defee ñu ñu mën cee mën a mën a dimbali suñu njaboot comme ni muy demee waaw fii dañuy dinañ dajaloo ñun ñëpp ñu biir fépp fu uude nekk dinañ la woo pour toog waxtaan ak yow te woo nañ leen te ñoom ñëpp dinañ ñëw parce que li def nii ñoom ñëpp yëg nañ ko ñoom ñëpp dégg nañ ko nañ ci parce que dañoo sonn et puis ñoom bu ñu jógee fii ñoom ñëpp dinañ dem ci ñoom waxtaan ak ñoom ñu doon benn parce que nag ñun doon benn rek moo ñu arrangé te doon nañu benn ba sax parce que ki sonn dañuy wax ne nit ki bu sonnagul sax mën naa bañ a def mais dañoo sonn ba tax bu fu ñu leen woo dinañu wuy si loolu moom leer na nañ ñoo leen di woo ñoom ñëpp incha allah